li nga xamante ne mooy dëkk bi bu ñëwee Balla Gaye Tapha Tine ah, ku leen xam na xam ne yéen ay course ngeen ay pare mën ngeen préparé mbër te xam ngeen mbër mu pare ak mbër mu pareegul mais combat boobu noonu géejawaay ban taxawaay la ci am en tant que nag géejawaay fi mu ne nii ci laay waxtaan ak yow yan taxawaay ngeen ciy def combat ak yan taxaw seetlu. waaw Balla Gaye nag man gisuma ko visa bi. Mm. mais ñu ngi diggante téléphone. vraiment Mathieu mooy passe téléphone ñu ngi diggante di waxtaan. vraiment euh, làmb moom dafa bokk ci làmb te bu jugee géej waay jóg te làmb ji dafa nekk làmb joxam ne mooy addunaam mm-hmm. abu man mënu ma nangu tafaatin cuune la du ma ko nangu parce que boo xoolee ñetti dernier combat tafaatin yi mm-hmm. dafa jóge ci émosé dafa jóge ci Bombardier mm-hmm. ñëw ci ñëw ci Boy Niang te yëpp la ci jëlee waaw Balla Gaye ñaar doomu na combat combat dafa chuté mais mais Balla Gaye am na ngëm-ngëm parce que dem na defaru jiwaat dem na defaru jiwaat te dama la bëgg xam ne ne làmb la joo xam ne dañ ko làmb ñu ñuy sot la du làmb individuel ñi si ñi si bokk ñëpp liir bee sax ci làmb ji la bokk bu dee xam ci làmb ji bu ci cërëm da ci da ci war am cërëm mais làmb day tële période boo xam ni tey Balla Gaye exemple la si géejawaay mm-hmm. tey képp ku mën ne géejawaay même soo ko meree sax war na jël tegal ci wetam ndax làmb ji da ko jar. la abu abu moom làmb ji moo koy bëri mais ñi gën a soxla làmb dafa bëri ñi gën a yéen làmb dafa bëri. dëgg la tey tey Igri wàll moo jur école yi Balla Gaye. tey ñun Balla Gaye bii ñëw ci salle bi dama ko jox sama tànk. barke yonent bi. mais day benn instant ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw cancer për bi. Mhm. bu ñu bëree mu daan ma saa bu ñu bëree coppite mënuma kaay tëdd bi ma ne boobu c'est champion. Mhm. kon ñun dañoo fekk lépp. abu ah ñun dañoo fekkee lépp ci départ ba ci fin ba mais ñu ngi ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm defal ko ndam hmm. abu Tapha Tine gars yi jàpp ni dafa dafa neex a bëreel neexul bëreel de neexul ci làmb dafa am lu gars yi di wax ay am lu gars di wax naan non ñemewul ak dafa ragal ak non loolu koy wax yaa ngi yaa ngi ci erreur kuy naan Tapha Tine ñemewul dafa ragal wala ñemewul bala Gaye hmm. non kooku yaa ngi wutal yaa ngi yaa ngi wax yaa wax yaa ngi wax sa danger képp ku naan yow Balla Gaye Tapha Tine mi ñemewu la mm-hmm. wala Tapha mi yaa ko mën non da nga waxee waxee xot rek wala nga bëgg ngay deretu géejawaay tey ñun suñu soñoon Tapha Tine Balla Gaye da koy dóor mu daanu mm-hmm. wala mu daan ko bi toog si kawam suñu géejawaay lañ am mm-hmm. te Balla Gaye mënu ma la géejawaay kon nag dafa làmb yoo xam ni ñi si rek da ci boole waaw mais nag combat bu bu doy war lay gis naa la wax leen de combat bi bu ko Balla Gaye jeexalul ci cinq minutes. waaw wala quatre minutes. waaw non dina doy waar. bu ko jeexalul ci quatre minutes. maximum mu résumé ko ci quatre minutes. quatre minutes maximum cinq minutes cinq minutes yu manqué ay secondes non combat bi dina doy waar daal waaw parce que. parce que Tapha am na ay défauts yoo xam ne bala Gaye xam na ko. waaw Tapha Tine dafa am ay failles mais failles yooyu responsabilité mooy tax. nga dem nga mu def yooyu failles. si mooy nga ëttal ko. mi fii yaa ngi koy bàyyi ak sagoom rek non fii yaa ngi koy bàyyi ak sagoom xel mi ñëw noonu neexul a daan neexul daan de xam nga ko de parce que abu dafa mu la wax abu man faral ma Tapha Tine faral dama ne la da nga xool ñetti dernier combat Tapha Tine yi mhm. li mu ci wane te Balla nag bëgg na combat parce que doo dox ba gis fenn Balla nii duna la gis na Balla te mu dem préparé ñëw làqu man moom sérieusement parlé ñu ngi dëggan téléphone waaw ñu ngi dëggan téléphone ñu ngi waxtaan barke yonent bi mais dama guma entraînement ak séeguma mm-hmm. mais dama ko bëgg xam ne géejawaay te moom la fi yàlla teg. dëgg la buy dem ab géejawaay nga dëkk na la jël. na ma jël. Mm-hmm. na jël Ousseyn na jël booy be jël keneen jël keneen. dëgg ji loola koy gañe de. waaw lamb la de. lamb ji du lamb ay ñii nii nii lamb ji ay cerveau koy gañe. billaay walaay calay gaa ñëw teel a ñëw si bi liir lamb ji. liir lamb am benn. am benn espoir boo xam ne am benn tur boo xam ne boo fa excès da nga ko espoir da mu jeex. lamb ji ko résumé. Hmm. téye ko mais bu yàggee rek dama ko bëgg quoi man. dëgg la parce que Tapha Tine Tapha Tine loolu la bëgg ah. kooku lamb ji diir yàgg. non loolu la bëgg parce que ba ba pare ba pare ba pare awu Tapha Tine njool la boo xam ni day dër bëgguma wax sax parce que njool la Tapha Tine njool la day dër Tapha Tine saa bu Balla wàccee day wàcc day dër. mais ci ci dër boobu ci la bëri bu war jeexee. waaw abu lamb ji bëree koy jeexal. kon la de abu lamb bëree koy bëree koy jeexal. lamb bëree bëree koy jeexal. billahi wala arbitre bi ngeen dalante tës. kenn ku xool fu mu fu mu jaar lamb jeex. parce que Balla Gaye moo bëre. Balla Gaye moo bëre. mais ëppul doole. waaw ëppul am na ay am na mbokk. Tapha Tine am na moyen. moyen de Tapha Tine préparé wu na. dëgg xel mi dal na. Mhm. xam la Tapha Tine Tapha Tine Tapha Tine ragalul Balla Gaye. waaw dégg nga mais nag Balla Gaye nag mooy indi xam-xamam ñëw jeexal làmb ci par force bëreeg moom. bëreeg moom Tapha Tine bal mu Balla Gaye mu bañ ak mu ñàkk bañ Balla Gaye dafa def bëreeg moom par force. Balla Gaye li mu bëgg def Tapha Tine daf ko def par force. su bëggee lamb jeex li mu bëgg def taafi da ko def par force mais du lamb joo xam ne dañoo di ko du négocier de làmb loo xam ne sa bakkan ak ni prix nga sa tànk dem fekk ko hmm. làmb jeex xam si benn cinq mille trois mille quatre mille ñu résumé làmb kenn ku ne ñu ne Balla Gaye daan na Tapha Tine sama xalaat daal laay waxee di ko ko ndam hmm. loolu am na solo loolu ko suróor mooy euh, Babacar révélation yi ñu def léegi léegi ci combat boobu parce que dina ay analyse am solo mais euh, beneen bi dañuy dégg que ne ñu bari naan euh, combat Ada Fass Alioune Seye mais ñun ñu amoon yaakaar Alioune Seye 2 Eumeu parce que ñëpp lañ teg suñu suñu bët yi Eumeu Sène Alioune Seye 2 wala Alioune Seye 2 Franc. waaw xam nga mooy li ma wax mooy li ma mooy li ma wax du fay ci biir ci biti lay fay. waaw Alioune Seye taksan mu ne ànd na ko waa Écurie mais tey lamb waxee dëgg tey Eumeu Sène moo doon moo doon taxaw ne wala ñu ne am Franc ne Alioune Seye laay bëreel. Mm-hmm. parce que Quench nekkoon na ci benn dynamique boo xam ne mbër ñeme ko jël. te Alioune moo ko def lu ko mbër mës sa def. 12 mu toog lu ko mësul def. ñoo dox ci duma ko xam la mm-hmm. muy dem ay mbokkam dañ ko lëng. kon Alioune Seye il a tout fait Alioune Seye mbër moo xam ne salle bi moo fi mu booy set moo fi njëkk mu am combat mu ñàkk am combat day entraîné. Mm-hmm. te dama la wax si Alioune Seye man tey équipe bi amul lu mu ci réglé boo xool sax Alioune Seye moo koy réglé am na détails yoo xam ne sax balaa mu egsi moom mu réglé ko ba mu set nit la koo xam ni nu moom da koy bokk nit ñi nit la xam ni nu moom da koy partagé mais làmb dañ ko war a jox bopp mooy ñii am seen mii war naa mën a bëri Alioune Seye mu euh, Gris Bordeaux bii war naa mën a Franc bi war naa mën a bëreeg Alioune Seye ñoom lamb ju te Alioune Seye bu jógee géej waay de ni Balla Gaye di jógee géej waay noonu la Alioune Seye di jógee géej waay jóg Alioune Seye dañuy ñoo xam dañuy jóg ñu jóg dëkk ko seetaan ndax yaram ak tegginam xama am fula ak fayda mooy li ma la dama ne lamb du fay ci biir ci bi ci lay fay mais Alioune Seye dafa war a bëree Alioune Seye dafa war a bëreeg Eumeu Sène wala mu bëreeg Franc wala mu bëreeg ay combat yoo xam ne combat yu ñor la te bu demee foofu sax la ci koy gën a parce que da nga gis parce que day minti uniforme Alioune Malick Seye chaque jour boo gisee bi physique xam nga shadow takk ngeen bu bëri xam nga mais lamb loolu la laaj. waaw lamb loolu la laaj voilà. waaw moom mu ngi ci moom ah euh, beneen te te te abu lamb dafa am nu mu baaxoo. gis nga gis nga gis nga gis nga lamb fi mu toll léegi. Mhm. lamb léegi du lu ñuy nëbb. waaw lamb du lu ñuy denc. lu ñuy denc lamb du lu ñuy tëj. dëgg abu lamb lu ñuy teg ci bayal bi. Mhm. kenn ku ne gis. wax sa xalaat lam foofu la toll abu abu mbër dugg na ci néeg taju di préparé hmm. ñëw ba ci bi lamb ñu ne ndax kii mu doon préparé abu làmb tollutul foofu abu làmb dafa ñëw ci penc mi lañ ko war a teg nga jël antenne ci penc mi bu ci mbedd mi nga antenne ci mbedd mi bu dee ci salle bi nga antenne ci salle bi ci géej nga antenne ci géej ci abu làmb nekk ci tollutul foo xam dañ koy tëj lamb toll doon foofu de te laamu ñëpp chance mooy ñi koy génn ci mbedd mi parce que tey boo génn ci mbedd mi tey ku mel ne abu mën a romb nga def benn faay mën la ah kat nii nga doxee ak nii mais soo ko tëjee gis te am ñoo xam ne tey say faay bu ñu gisee sax la ko wax laamu dootul lu ñuy tëj da nga koy ci penc mi espère mel ne ku ci mel ne yéen yéen coach yi ko diw am naa combat mais lan laa war a def yan pièce daa abu lamb boo xool lamb ji ñi koy tëj waaw te boo écrit ñu toj yëpp ñeen làmb ñu ngi toj am abu fañaas ci mbedd mi ñu entraîné kenn tëjul làmb ji te ñu ngi leen abu làmb foofu la toll laal dañ koy làmb dañ koy def ci penc mi nekkatul lu ñuy tëj làmb dañ koy ubbi ñëpp seetaan kenn ku ne wax sa xalaat fa la làmb toll dëgg la loolu am na solo loolu euh, ñu gis euh, kar macha allah euh, jamono ji écrit wàllu def ay performance yu am solo ci li ma ci làmb bëgg dem Maguette Seck bëre bëre bu rëy ah, daan daan jël bu am bu amul benn werante waaw yow Abou Maguette Seck ñëw nga fi fekk fa Maguette Seck Maguette Seck Maguette Seck Maguette Seck Maguette Seck fii la ñëw fubal bu foolee pare ñëw entraîné Maguette Seck bu fubalee pare ñëw entraîné Maguette Seck sax ngoon fii la ñëw fubal bu fubalee entraîné maanaam dafa mag booy ci bëre ba pare yaramam moo ko moom loo ko teg da koy tegoo mhm. day ñëw fubal fii ba pare ñëw takk ngeen bëre maanaam day dund làmb li problème sax mooy dafa am ay jafe-jafe waaw boo bu amoon lu topp ci ginnaawam tuuti yenn mooy ni kon Maguette Seck day tëj lamb parce que mën na bëre mais da ngay xool xoolal lamb ji fi ko booy <laughs> benn foofu fi ko booy bi bu defoon bu defoon tuuti rek booy bi jël tànkam képp ko seq ba mu dëgër nekk xale bu ndaw xam nga nga ñëw bëre booy bi booy bi tamit bon ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy wax décourage lamb noonu la ba pare nañ xool fi ñu koy jaarale xale boo xam ne xale boo xam am na avenir bu jógee ñëpp jóg parce que Kayré suma grand la xam nga kay suma grand nit ku baax la mais dama bëgg ñu koy xool fi ñu koy jaarale parce que am yenn am defar yoo xam ne day yàq mbër day découragé loo parce que découragé loo mooy ñu war dem doot ñu dem mm-hmm. mais bu ñu koy dugal dañu koy dugal fu ñu koy fu ñu koy fu leer parce que du xaaj wala am nañu ko ma xam ne nga xam la te booy bi xam nga xale boo xam ne waaw mais booy bi da xam ne kii c'est mm-hmm. mënoo mënoo mënoo mënoo jógee situation yu mu dem nii mais mu boo yoo xam ne war yu baax lañ vraiment seen papa nekk suma grand nekk ku baax ñu ngi nga xam ne damay nga xam waaw mooy mooy mooy mooy mooy Balla Gaye 2 doomu Géejawaay la. waaw te bu jugee Géejawaay jóg. te Balla Gaye 2 combat bi mooy mooy addunaam. a bàyyi ci làmb moo mën bi moo moo mooy tax gars yi indiwaat ay ci làmb. dëgg la tey Balla Gaye 2 tey bu ko yàlla mu gis ni ay ay millions ngay ci làmb. Mhm. sponsor yi topp ko. Mhm. xam la kon ñun amuñu dul Géejawaay. moom mu nekk loolu géejawaay di dox ngir géejawaay kon ñu ñu mën mooy waa géejawaay yëpp yëpp mobilisé ñaanal ko suñu borom may ko ndam ci combat bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla parce que couleur Guédiawaye lay yóbbu te abu làmb Balla bi dafa métti li ci laxas dafa bëri abu mm-hmm. abu Balla Gaye ji mooy addunaam mm-hmm. làmb ji liñ ci la xam ne Balla Gaye ci làmb la bokk gis nga li mu ci làmb yëpp abu daan nekk ni daan Tyson xam nga tegale ay mbër ay ñoom baabu ñëpp daan leen tey mun na ñëw làmbu ji rek gars yi doon ñu leen est-ce que Balla Gaye la woon te mu nekk xale bu ndaw mm-hmm. am la kon nag géejawaay ñoo ko mën a dooleel jàppale ko topp ci am pour mu réussir lamb ji abu lamb ji su ko réussiree géejawaay day dundaat. dëgg la abu lamb ji su ko réussiree mm-hmm, mm-hmm. maanaam maanaam maanaam géejawaay day nekkaat beneen continent. dëgg te Balla Gaye mbër la moo xam ne bu jógee géejawaay dañuy jóg. dëgg la te Balla bu daanee géejawaay day géejawaay day day dund day dundaat daal. te actuellement géejawaay day nelaw. mais nag xam nga ñu koy wax ni combat bi mu teg ci bakkanam la ak fayda mm-hmm. te combat bii da ngay dem jeexal ko. Ah, bu combat bi da nga ji ay risque dem jeexal ko. combat bi képp ku munul dina Balla Gaye dama nga jeexal làmb ji. no wax nga ko Balla Gaye li muy lii daan Tapha Tine. Tapha ñëw jeexal làmb ji dugg ci garde bëreeg moom jeexal làmb ji. mais fii ak mi ngi xalaat rek à tout moment moom mën na def différence mais ñu ngi ñaan waa Guédiawaye yëpp topp ci ginnaaw ñaanal Balla Gaye de suñu borom may ko ndam encore une fois tamit moo xam nag ci la de guerre. na ko gars yi jàppale abu na jàppale juum na juum na nangu nañu nañ parce que gis nañ ko mel ne Abdoulaye Ndiaye di def ay jéego am solo. Mm. bëgg nañ ko tudd turam. mais Abdoulaye Ndiaye mi ci def ay jéego yu am am am am solo. barke yonent bi bëgg ko tudd turam mais man dinaa tudd turam parce que dafa def lu rafet mi ngi def ay jéego yu am solo. Abdoulaye Ndiaye mi ci def ay jéego yu am solo waaw ñu ngi koy ñaanal nag xam nga lii mu jéego ñu def yàlla suñu borom defal ndam lu sedd guy waaw di wax nag waa géej waaye yëpp nañu mobilisé topp ci ginnaaw Balla Gaye 2 pour jokkoon dem arène nationale yàlla moo ñu ndam mu nekk waa géej waaye waaw yàlla yàlla def jàmm yow nag moom mention spéciale parce que fi mu fekk sax bu moon wax mais xam nga wax mu ñàkk tam eh. xarit bi ñëw nag ñu baal ñëpp ak ah, ñu baal Sénégal yëpp ak mi déwél suñu borom fekk ñëpp ne si jàmm xam nga képp ku ci amul soxna suñu borom male soxna képp ku ci amul njaboot suñu borom male njaboot képp ku bëgg génn dëkk bi suñu borom génn dëkk bi képp ku ci am loo loo loo mm-hmm. suñu borom yombal mm-hmm. suñu borom mi moom tey ak suba ñu ngi koy ñaan mu xam nga mm-hmm. projet yëpp egg xam nga suñu borom def jàmm réew mi nekk suñu borom dafa leen jàmm def ci réew mi jàmm loolu daal abu la ñuy ñaan yàlla na yàlla def jàmm. la dëgg dëgg daal gars yi na ko gars yi jàppal daal. jërëjëf